mbokk yi bàyyi xel sénégo TV senego.com jërë ngeen jëf ci bàyyi xel gi euh, comme ñu ni koy amalee at mu jot yóbbu lu màggal ci Senego ñu ñëw itam ci yenn baax xar baax yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul am na ci Touba ak lu génn Touba tey nag euh, suñu premiere numéro dana koo def fii ci Daaru Marnaan ndax dëkk la boobu boo xam ni histoire la ci yoonu murit waaye la dëkk la boobu boo xam ni ñàkk fee ñëw daal warul nit war na fee mën a ñëw di gëstu euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo ko sanclu Euh, ci jamono bi nga xam ne mu ngi ci géej gi maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru moo ko sanc ci ndigalam ci ab lettre boo xam ni Cheikh Mat Bamba moo ko ko yónnee fii nag ay xew-xew yu bëree bare dafee xew Cheikh Mat Bamba nekk na fi ay jamono bi bi mu koy sanc sax lettre ma ngi ca ma ngi ca bind ca guy tàggoo ndax fii dafi daan jaar ay yoonu yoon euh, lu ko jiitu itam maam Thierno di ko sanc xam na ni euh, fii di Daaru Marnaan dëkk la bu boo xam ni maanaam lépp histoire la dégg ngeen ci Euh, Buur Siin seede su rëy sa nga xam ne defoon na ko defoon na ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci jamono bi nga xam ne ñu ngi koy kalaame ak euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekkal tubaab bi di gouverneur di ko xam la ni moom ay ngànnaay la jël dugal ko ci këram wala kon mi ngi yónnee ay ngànnaay ngir janoo ak yow ci jamono boobu Buur Siin daal di koy seedeel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nit la koo koo xam ni loolu ñu koy waxal moom Buur Siin gëmu ko ba tax mu indi woon maanaam ay jàmbaar ci kër gi fii ngir ñu saytu ko ndax Euh, li mu waxoon daal mooy jàpp na ni ñii ñi nga xam ne ñoo nekk ak tubaab bi wala ñoo ànd ak tubaab bi ay saay-saay lañ yoo xam ni mën nañoo ñëw sax indi fi ay ngànnaay dugal ko fi wax ni Cheikh Mbaba moo ko euh, tax mu indi woon ay jàmbaar ngir ñu toog fii daal di koy euh, maanaam saytu kër gi ak li ko wër fii daal histoire la ba boo xam ni Serigne naa ci kanam tuuti daanu daanu ko laaj mu ñëw ci lenn ci histoire bi bu ko defee rek mbokk yi dañuy daal di dugg ci biir fekk fi Serigne naa mi nga xam ni Serigne Mbacke Daba Sarr moom Cheikh Abdourahmane moom Mame Thierno Biraye moo nu booleeg moom moom Serigne Mbacke Mbacke Daba bi nga xam ni actuellement nii mooy xalifa bi nekk fii itam ci Daaru Marnaan kon ñu dem ci biir rek fekk fi euh, Serigne naa mi nga xam ni moom la ñu euh, Serigne bi booleel ngir itam mu ñëw ci lenn ci histoire fii euh, di Daaru Marnaan fii nag soriwul dara gaarasu Dakar moo gaarasu Dakar daanaka ci 100 mètres rek lay toll ci pencum Daaru Marnaan kon ñu ngi fii ci pencum Daaru Marnaan fas yéene ñëw itam ci lenn ci histoire Daaru Marnaan ak ni nga xam ne noonu la ko maam Cerno Birahim Ndaamal Daaru sance woon ci ndigal loo xam ni mu ngi ko jote woon ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul kon bokk ñu dugg ci biir bu ko defee fekk fi Serigne Cheikhouna mu ñëw itam lenn ci histoire bi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 di ab sëñ daara nekk fii ci Daarul Manaan war a ànd ak yéen ci waxtaan woo xam ne day jëm ci lenn ci histoire dëkk bi liñ ci xam ko si néew ñu ànd ci ak yéen incha allah. Daarul Manaan Touba moom moo ko moom moo ko mag ndax sëñ bi mi ngi ko sancaloo boroom Daarul Monti ci atum 1900 boobu mi ngi ci géej gi donte nag njëkk mi dem ci géej gi. daana ñëw ci barab bi waaye booba sàncaguñ ko ndax am na gu ñu guy gu ñuy wax guy tàggoo mu ngi fii ci diggante jumaa ci ak armeel yi boo demee ci histoire dañuy wax ne sëriñ bi daana ànd ak sëriñ bu soobe bi sëriñ bu soobe nekkee Mbàkke mu nekk tubaa juróom-ñaari atam yooyu sëriñ bu soobe daana jóge Mbàkke di ko seet si Touba boobu masaa di gunge sëriñ bu soobe ci guy googu la ñuy tàggoo moo tax ñu tudde ko guy tàggoo moom itam bu fekkee sëriñ Bousso Mbacke bu koy gungee ci kuy googu la ñuy tàggoo fii ci barab bi nga xam ne mooy barab bi mu def jumaa ji itam di jàkk ji sëriñ bi daan na ñëw ndax nañ ne ànd naag sëriñ Bousso bi jullee fi sëñ Abibu Mbacke mu mag sëñ bu mag nga xam ne ci mag ñi la bokkoon na sëñ Modou Mbacke bi muy defar jumaam ji ne ko sëriñ bi daan ak sëñ Mbacke Bousso jógee Touba ñëw fii ci barab bi bu jullee fajar ñëw fii ba jant fenk mu doog a delluwaat kon day mel ni sëñ bi da bari woon na fa ay tànk daana fi ñëw waaye nag sànc bi dëgg-dëgg moom mi ngi am bi sëñ bi demee ci géej gi bind ab leetar jox ku ñu wax Abdoulaye Ndour mu andil ko borom daarul Muxti mu ne ko na nga dem sàncal ma fa ñuy wax guy tàggoo wax nañ sax ab da ko jox ay xayma ne ko bu demee ci guy tàggoo na dox mi jéego ci sawo bi defal ma fa jàkka. doxaat naa mi jéego defal na fa kër jàkk ji mooy jàkk ji ñu jàkkaar lool kër gi mooy kër gi ñu nekk sëñ Moussa mi ngi koy nettali ci wolofal borom daaru bi di wax ne euh, ca moment la Abdoulaye Ndour mu jógee kongo ne jaleñ ma ngay luur jox ko fa leetar yu ànd ak sirru tàggale ko balaa fegal ko charru nekkoon nga sanc fi ñu naan guy tàggoo tuddee ko daaru foofa naan duñ tàggoo kon muy guy tàggoo mooy fii daarul ma naan booba itam sëñ bi dana ko boo doxee nanga mi jéego defal ma fa jàkk nanga mi jéego defal ma fa kër te defar ko maa ngi ñëw muy atum 1900 toog na fi ñaari at moom boroom Daarul Moxti ak njaboot gi sëriñ bi jóge ko ci géej gi 1902 ba mu wàccee Ndar la yónni sëñ Issa jenn mu ñëw fii ci dëkk bi woolu borom Daarul Moxti fii la ko fekk borom daaru dem ndar fekk fa borom tubaa ñu waxtaan lañu waxtaane mu jox ko ndénkaan ya ak mboolem lañ war a waxtaan yëpp ñu waxtaane ko fa borom daaru jégewaat foofa delsewaat fii sëñ tubaa ne ko demal xaar ma daaru ma maa ngi ñëw fi mu jaar ci réew mi yëpp ba ni mu demee daaru salaam boroom gaawaan ngan la ko nganam guré googee ba mu fa jógee fii la daal di ñëw fii la wàcce ay bagaasam fii de ba mu fàccee ay bagage dañuy wax ne boroom xam-xam dañuy wax ne fii la jàppoon a dëkk abadan bu fekkoon ni du deuxième exil bi ñu ko yóbbu gànnaar mu ñaareel bi ñu ko yóbbu gànnaar kon fii lay dëkk ndax fii la wàccee ay bagage fii la nekkoon mook ak njabootam fii la nekkoon mook seex yi fii la nekkoon ak bokk yi ñëpp juróom benn weer yu mat sëkk yoo xam ne am na ko ci dëkk bi génnaatu ko lu dul benn diir boo xam ne kër gi dafa lakkoon bi kër gi lakkee wax nañ dara desut borom daaru sax ñëw na ci moom di ko wax ne ko ndalax gi de leen doo nga ma ci metti muy maanaam bagage liggéey bi ngi liggéey ci géej gi ni mu toll ak ni mu rëyee mun dara naax saa noonu sëñ bi ne ko liggéey bi denc naa ko fu yàq yëgut wax nañu ci biir kër gi la gas ay pax yu xóot yu rëy gaal yi nga xamee ni doon na ko bind ca Gabon ak fu mën a nekk ci tukki bi fii la gas ba mu xóot mu suul ko fi ci biir kër gi muy kër gu yéeme goo xam ne lu bari ci ay mbóot mi ngi fi bi mu lakkee nag toxoon na fi dem ndaam boo demee ndaam boo wàccee tëli mel ni ku jëm penc ba faa nga fay àgg foofa lañ ko defaloon kër ci kër Sëriñ Cheikh Lo foofa la nekkoon ba ñu defaraat kër gi borom daaru defaraat ko mu dellusiwaat fii nekk fi juróom-benn weer yam fi nekk fi la doo fi jógee doo ko dem gànnaar ay xew-xew yu bari nag xew na fi nag ci diggante boobu. kon fii am na am na am na am na bagage sëñ yoo xam ne mën na jàpp ne mi ngi fi wala. waaw bagage yi nga xamee ne maanaam gas na ko suul ko fi mu ngi fi. bu dee bagage yi fi nekkoon nag yoo xam ne ay ay jeexit la yoo xam ne mi ngi fi woon xañ na dañ ko toxal yóbbu ko feneen ndax kër gi bu ñu diggante bi gent na fi gent na fi ginnaaw bi la ko suñ fal ñëw yeesalaat ko loolu dinañ ki ñëw ci histoire bi waaye histoire yi xew fii bari na lool bokk na ci histoire yooyu mooy kër gi fi la ko mbaaxaan fekkoon histoire boobu ngeen di dégg mhm. te booba. Euh, tubaab bi moo ko doon woolu waaye sëriñ bi itam fekk ay jaxasekat dem nañ ci sëriñ bi ci tubaab bi wax waxal fa sëriñ bi loo xam ne du dëgg ndax dañoo wax ne sëriñ Mandumbe ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñaar yëpp bu ci nekk ñëw na ci ñeneen maam Cheikh Ibrahima Fall ñeneen sëriñ sëriñ Mandumbe la. waaye boo demee ci téere bi waa waa Rawdu Rayaahin defar di ci wax istiwaaru ma Manaan ñoom sëñ sëriñ Mandumbe lañ ko confirmé ne moom moo demoon jëndi ay lal ndar doon ko andi ba. Euh, benn barab ñu nefa di dallu ci guddi ga ñi nga xam ne ñooy jaasuus yi maanaam agent secret yi ñëw làmb tànki lal yi defe na ay fetal la dama ca mbaaxaan waxoo ko mu daal di wax gouverneur général ne ko sëriñ bi jënd na ay ay ngànnaay mu ngi waajal maanaam xeex ak yow loolu nag bi mu amee tubaab bi dañoo daal di jóg woo chef de canton yi ak buur yi fi nekkoon ngir laaj leen seen xalaat waaye buur seen ku ma dofeen Juuf moom moo wax ne man de kooku la ma ko xamee xame wu ma ko lu yee fitna ab téere laa ko xame ak warga leen ñi ñeñ ñi loolu la ñuy wax. buur seen moom mel ne am na ay kàddu yu yoo xam ne def nañ ko ci seen bi ci fii ci waaw booba la waxoon ne li ma ko xame mooy jaamu yàlla laa ko xame waaye xame wu ma ko fitna daa ci wax ne sama mantu bii nangu naa koo teg bu yéen a fekkee ay ngànnaay ma ñàkk sama nguur wax nañu bi mu defee noonu nag. dafa jóge siin ñëw fii ànd ak ñeent fukki ponkal ñaan borom daru ni ko dama bëggoon ñu sécuriser ma kër gi maanaam ñu aaral ma ko fu ne kenn taxaw fa ndax seen caacaay egg na ci ñëw dugal fa ay ngànnaay ba noppi bu di ko ñëwaat jël ko ne fi lañ ko fekk nga xam ne bañ attaqué kër gi bañ ñëwee nañ doon dagg sàkket yi di bënn gaal yi waaye bañ xoolee gisuñ fi dara lu dul ay téere gisuñ fi dara luy nuru ngànnaay ca ci gàttal ci histoire bi mu gudd la nag loo xam ne xam naa dañ koy tënk rek. ginnaaw bi kër gi géntee sëñ Fallou ñëw histoire boobu tamit ni mu demee. waaw ginnaaw bi euh, bi loolu amee ba noppi xam nga sëñ bi fi la jógee dem gànnaar en 1903 bi mu gànnaar nag jóge fa nekk fa yaakaar naa juróomi at gànnaar ñëw ci yeen jolof ginnaaw bi la wax borom daarul moxti ne ko. dama bëgg nga dem Mbàkke Kajoor ndax suñu waajur wa sëñ Ibrahima Mbàkke borom Mbàkke Kajoor dafa lu ñëw dafa ñoo maa ko war a taxaw te nekkuma fi kon demal nga taxawul ma ko fa la borom daaru jóge fii nag ànd ak njaboot gi dem foofa ba mu demee fa la nekk dëkk bi daal di génn am na ñoo xam ne loolu 1907 8 la daal. ba diggante diggante 8 ba 12 daal nga xam diggante boobu sëriñ bi mi ngi woon ci yeen Jolof. ndax mille boo xoolee 1907 bi sëñ bi ñëwee jógee gànnaar ñëw ci Thiène kii borom dëkk bi nga xam ne mooy sëñ Abdourahmane dinañ ci ñëw nga xam ne mooy borom daaru Muxti jeesalaat dëkk bi fii la feeñee jamono borom daaru bind ab lettre yónnee ko Thiène sëñ bi fekk mu ne ca kër nga ñox daaru Rahman mu ne nañ ko tuddee Abdourahmane ca ñu teg ca ay weer sëñ Abdoul Khoudous daal di feeñ fii jamono moom itam mu bind ab lettre yónnee ko sëñ Touba. sëriñ Tuubaa nañ ko tuddee Abdul Xuddus fekk boobu man ci këram nga ñuy wax Daarul Xuddus ci yéen waaye ba sëñ bi jógee foofa nag ba mu waxee boroom daaru mu jóge fi nag ci la borom daaru bàyyi dëkk bi dem foofee di Mbàkke Kajoor fa la nekk ba leetaru sanc daal daaru muuti fekk ko fa mu jógee dem sanc daaru muuti li tàmbalee diggante boobu nag ba 43 dëkk bi dafa gànt li waral loolu mooy boroom daaru moom musta am dara ci boppam musta bëgg dara ci boppam fu mas a sancal sëñ Tuubaa bu ko sëñ bi joxee ndigal jógee dafa jëf dem feneen te itam fàtte ne moo ko sancaloon sëriñ bi ndax ci ndigalu sëñ bi la ko sancoon bi loolu amee nag ñu dem ba 43 borom daaru wàccu bi liggéey 44 si Abdourahmane doomam ji nga xam ne maa ngi wax léegi ne fii la feeña jamono mm-hmm. jóge daarul muxti di wut fu mu mën a liggéeyee la yàlla mm-hmm. ginnaaw ba mu fa jógee kilifaam moo doon sëñ Moodu Awa Balla mm-hmm. bi mu ñëwee fii sëñ Moodu Mustafaa la fekk waaye wax nañ ne dafa demoon ci sëñ bu Buso ba ma ko waxee ne ko damaa am tool yu ma bëgg yoo xam ne dama fay jaamu yàlla di fa yar sama njaboot yàlla sëñ Mbàkke moo ne ko demal ca sëñ Mour Moustapha bu ko wax ne laa bëgg a jam ne wax ko li nga ma wax rek ne ko foofu ma nekk daal di fa jaamu yàlla di fa di fa yar sama laa bëgg sëñ Mour ko fa sëñ sa bàyyi sancaloon sëñ Tuubaa muy daarul ma manaan dem fa ba àggee nga sanc fa ku la fa fekk bëgg laa xatal bu ma ñëwee dina ma wax anam fu bàyyam nekkoon bi sa bàyyi di sancal sëñ Touba dëkk bi jox ko aw fas waaye xam ne jox ko aw jiw jox ko ay néegi boppam mu ñëw sanc fii 43 nag moom la fi nekk moom sëñ Abdourahmane sanc bu metti waaye mu sañc ko ànd ak mbokk taal bi mu àndul jóge daaru moom ñun ñi suñu maam ci lañ bokk nekk fi nam na ma ko waxee woon léegi di fi jaamu yàlla di fi liggéey di fi jaar ak njabootam def fi ay daara bokk na ci daara yi Sexaw ga ba ca fi ñuy wax Ngélémou tey jii ndaamaatu ba ci euh, sous bi. Mm-hmm. yooyu yëpp ay daaram la woon. mu doon suuf suyaatu nag. Mm-hmm. suuf su soo xam ne mën nañu wax fii ba ndaamaatu mm-hmm. fii ba Sexaw ga yi ba fa ñuy wax terrasse yooyu yëpp suufam la bokkoon ay toolam la woon. bu yoroon ko di fi mbay mbay moo xam ne nit ñi dañ fi daan ñëw di fi jël si ab dund ba mbay mi ñoraat loolu mag ñi fi nekkoon nekkal nañ ko. waaye nag sëñ Fall nag mi ngi fi ñëw 1960 60 lépp sëñ Fall ñëw nga xam ne dëkk bi dekkal nañ ko ba noppi sëñ Fall doo ko ñëw nag yeesal kër gi bi mu fi ñëwee itam sëñ Abdourahmane moo ko jox kër gi ci li nga xam ne mag ñi nettali nañ ko bi mu ñëwee moom sëñ Fall wax nañ ni ñetti néegi barkeelu yi nga xam ne moo ne ci kër gi néeg bi ci nekk sëñ Fall moo moo ñëw yeesal ko maanaam moo ne ni fii la nekkoon. néeg bi ci digg bi mu ñëwee dafa wax nañ gas biñ gasee ñu gis xalima yi nga xam ne sëñ moom la daan bind mu ne fii moom la daan bind demaat ca néeg ba beneen beneen wet gi ñu gas ba mu gis jeexit ja mu ne fii mooy ñaareelu néeg bi demaat ca beneen bi ñu gas ba mu gis jeexit ja mu mooy ñetteelu néeg bi ñett néeg yi nga xam ne moom la fa sëñ bi defoon daan ci baagante di ci jaamu yàlla bi mu ciy binde bi mu ci dalloo Baye Mbaye Diouf nee na ma booba la jox sëñ Mbacke Madina benn néeg mu yeesal ko benn bi jox ko sëñ Modou Xabaan benn bi sëñ Modou Bousso ñoom ñoo yeesaloon néeg yi mhm. en 1960 la fi sëñ Fallou ñëw yeesal kër gi nag fonkoon ko lool nag daan fi ñëw wax nañu daan fi ñëw maanaam euh, gaaw dimaas altine ba talaata àllarba ba alxames mu gonte fi dem julli ji julli ji julli ji ajuma fële Touba nga xam ne fii itam fii la daan taal ci kanu gi loolu yaakaar naa ñëpp mën nañ ko mhm. fii euh, politicien boobu nga xam ne wax nañu sëñ Fallou amoon na lu mu seqoon ak moom fii la waxoon ne jant meng diw meng waaw Senghor itam ba mu koy fal fii la ñëwoon ak ñeer yeneen ak yeneen yoo xam yu bari def na ko fii nga xam ne fii la wax ne moom fi la daan taal ko moom Cheikh Mamadou Fadal nga kon moom moo ñëw yeesalaat kër gi dekkal ko ba fi ñu doon ci ay maam loxo njabootam la nekk si abul baraka moom moo koy yeesal nii eh, sànc yi nga gis fi ne yeesal ci kër gi nii xam ne loolu mooy histoire bi ci ci ci ci gàttal waaw moom mm, xanaa di xam xamle na rek maanaam kër gi moom kër la gu jar a xam kër la goo xam ne itam yombut ndax kër goo xam ne sëriñ bi liggéeyam bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko ci géej gi ak ni mu toll bi mu ñëwee kër gi nga xamee ne fa la sippe ay bagaasam kër gi nga xam ne bi mu ñëwee Sénégal fa la fa la njëkk a nekk te amoon yéene itam sax fa dàkk ba noppi itam suul fa ay fàgguteefam yoo xam ni diggam ak yàlla boromam la ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu denc ko fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk ko fi Seydina Jibril fekk ko fi ndax wax nañ ngi sëñ Fallou keroog bi mu ñëwee di yeesal kër gi bi mu ñëwee ba ci néeg bi dafa wax ne maanaam bay di woowu sëñ bi doo xam ne yaqini ilal jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu dafa wax ne suñ boroom maanaam eh, fegal na ma ba keroog mooy dugg àjjana lépp loo xam ne gërëmu ko daal di wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam day suñu yonent bu tedd boobu ñëw ne siyaare suñu kër gi boobu guddi gàmm la woon ne mooy gàmm gi gàmmoo fii 1902 wala 1903 nga xam ne sëñ euh, Abdourahmane sëñ Moustapha Abdourahmane Lo wax na ne bokk na ci sabab bi sax yóbbu ko gànnaar ngir mbooloo mu bari moo xam ne daje woon na fi mboolem futaalu bi nekk ci réew mi ñëwoon nga ànd ak moom gàmm ko woon. gàmm gu rëy a rëy rëy gàmm mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ko def fii ko def fii te loolu sëñ bi da koo bind. ñaar bi itam bàyyi sëriñ Touré mi imaam ba demee néegam di nga fekk mu benn nataal bu mu def néegum ñax bu nekkoon fii ci kër gi mu ne fii fi la ko Seydina Jibril fekk doon ko ndokkeel bi mu jógee ci géej gi. yaakaar naa ne ñaar yooyu rek doy na sëkk ci ngëneelu kër gi. Daaru Minaan gi ni ma ko wax bi mu ko sancee nekk fi ak njabootu sëriñ bi ndax sëriñ bi mu jógee ci géej bi mu dem ci géej gi da ko waxoon ne Mbàkke Bari la ko bàyyi woon ne ko mën ngaa toog Mbàkke Bari bu jàpp ne pour jàpp ni mu nag foo la fi soob fi réew mi mën nga faa nekk. add moomee tool yoo ko ku baax ki bàyyi loon foofee mbàkk bari wax nañu bi sëñ bi nee dër dem saa saa yi ñoo ñëw yàq tool ya nga xam ne at mooma lañ dundee ci at mooma ba nawet bay ñoraat dañ ko doon yalwaan ba mu fa jógee ñëw na fii Mbàkke Bawol ba mu fa jógee moo fi jox guy Ngora foofu la sanc ba mu fa jógee la ko sëñ bind ab lettre mu ñëw sanc guy tàggoo gi muy daarul manaan wax naa léegi ne sëñ bi moo ko wax ko ñu joxe lettre bi Abdoulaye Ndour da ko wax ne ko maanaam ma sañ ci fa ñu naan guy tàggoo tudde ko daaru foo fa naan duñ tàggoo bi mu ñëwee sañ fii nag moom nekk fi ak njaboot gi ba yàlla dogal ndigal jotaat ko fi mu jóge fi dem Mbàkke Kajoor foofee la jógee sañ ci daarul moo dëkk bi bi mu ngentee doomam ju baax si Abdourahmane moo ñëw sanc ko ba mu ko ñëwee sanc ko jaar ci ay kilifaam booba si Modou Awa Balla moo fi nekk di kilifaam ak si Modou Moustapha waaye ci xelal goo xam ne sëñ Mbàkke bu sa xelal na ko ko ngir mu dem sëñ Moustapha mu jox ko dëkk bi ak la ci ànd lépp yaakaar naa jaar nañ ci jël matul jaaraat ginnaaw bi mu fi nekkee nag di góor yàlla di jaamukat yàlla bu mag di ab tab di koo xam ne jàkkam ji nga xam ne moom la moom mooy jàkkee sëñ Tuubaa ji ko borom daru defaroon moo ko daan jiital boppam waxtu yëpp dawul manqué wenn waxtu moo xam muy naw muy taw moo xam muy naaj muy tàng muy set lépp moo ko daan jiite wax nañ sax am na bis boo xam ne day taw taw bu metti mu jóge ci ndax moom fële moo doon këram ndax borom daaru bi mu sàncalee fi sëñ Tuubaa dafa ne randu ba dina la mu sàncal fa mu sàncal fa sànc fa kër boppam. ñi ngay dégg ci yoon yi ñu ay kàngam sëriñ Fallou sëñ Mour Moustapha ñu Mokhtar Bintaloo sëñ Mor Roq Yobousso sëñ Ma Banji Ndiaye euh, ñooñu nga xam ne borom daaru moo leen jàngal fii la leen jàngale. ba ki dem si si El Hadj Mbacke mi ngi ma wax ne ma Euh, sëñ Modou Khary Bousso mas ma fee ñëw fii ci kër gi bi muy dugg mu wax ne fii day gis ci wetu ci wetu càmmoñ gii boo duggee ci bunt bi néeg sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha fi la nekkoon nga xam fii la leen borom daaru jàngale bi bi yàlla dogalee itam ñaari njabootam yooyu feeñ fi muy sëñ Abdourahman ak sëñ Abdoul Khoudous sëñ Abdourahman bi mu ñëwee yeesal dëkk bi yeesal kër gi fee la def këram moom ndax fii mu bàyyi ko fii naa ne 1960 la sëñ Fallou ñëw laaj ko mu jox ko ko sëñ Fallou yeesal ko waaye nam fi nekkee woon nag mooy jaamu yàlla gi ma doon wax benn bis mu jóge ci këram gi muy taw taw bu metti muy xuus ci biir taw bi ñëw julli ba noppi génnaat xuusaat ci biir taw bi dem néeg dem këram moom li may dafa wax ne maanaam boo demoon ci àll ba yaa ngi gis pël boo xam ne wala sàmm boo xam ne ma nga topp ci ay nagam muy taw te alal ja moo ko jaral muy taw tawte kon ñu jaamu yàlla war ñoo jaral muy taw ñu génn dem jaamu yàlla te ñëwaat. daal di wax ne te xuus ci ndox moo gën fuuf xuus ci sawara te xuus ku xuus ci ndox dem jaamu yàlla ëllëg si biir mën ngaa xuus ci biir sawara kon kooku noonu la meloon doon tab boo xam ne itam ñi ko seqoon muy sëñ mu sëñ sëñ sëñ Fallou sëñ Mourou Mamoun wax nañ ne ma ngi dañ daan wax ne ku am soxla boo demu ci sëñ Fallou mu fajal la ko demoo ci sëñ Abdourahmane mu fajal la ko demoo sëñ Mourou Mamoun mu fajal ko du faju nga xam ne njooxe la doon def yoon woo xam ne daa jóge tubaa jaar fii dem Daaru Salaam te ñee sëñ Mourou Mamoun moo doon xalifa maam sëñ Fall muy xalifa sëriñ Touba moom nag doonul xalifa maam Thierno loolu njàmbaar la woon réy réy goo xam ne wane woon na ko mboolem ñi fi nekkaloon tam moo lay yoroon seen lépp ku ñëw moo lay sancal yoral la dund bu ren ba déwén moo daan takk sëy yi moo daan génte doom yi lépp moo ko daan def daan taxawu ñi fi jóge di leen ñaanal di leen saraxal bi mu fi jógee itam nag mu bàyyi fi doomam ju baax muy sëñ Mourou Mbacke di taawam sëñ Modou Mbacke moom mii sax sëñ Abdourahmane mi fi jógee 1972 bi moom mu nekk fii sëñ Modou na fa waajuram nekke woon yaatalaat dëkk bi nag maanaam mboolem li foor am mu indi ko fi moo xam ndox la moo xam courant moo xam jàngukaay lépp am fi dëkk bi defar jumaa yi nga xam ne moom la fa waajuram bàyyi woon mu doon jàkkee seng tabax ko ba mel ni mu war a mel nekk fi moom itam ba 2001 mu jógee fi bàyyi fi sëñ Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk di xalifa Sëriñ Abdourahmane tey di borom dëkk bi moom itam na fi waajuram nekkee woon magam ja nekk ko fi noonu la fi nekkee sëñ Mbàkke day la xaritam ba di sëriñam sëñ Saliou daan wax ne lu diine lislaam awma ci defar awma ci yàq foofu la nekke sëñ Mbàkke doo ko dégg fenn doo ko gis fenn amul benn yëngu bu dul yëngub diine ba gis nga ko fi ñu toll nii jumaa ji nga xamee ne moom laa wax ne mooy jumaay Sëñ Tuubaa ji ko borom daaru defaloon bi mu jógee ci géej mu am fi juróom benn weer di fi jullee di jiite borom daal di ko la xaamal moom la yeesal nii di ko defar barki démb la sëñ Falloum sëñ Abdoul Khadir ñëw ci si njëgalul sëñ sëñ Muntaxa ñëw teg xeer wi incha allah liggéey bi lee mu tàmbali moom itam ca loolu la nekk moo fi nekk jamono yi nekk ñu ngi koy ñaanal suñ borom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax la fi waajuram la fi nekkee la ju baax yi nekkoon la fi nekkee te mooy jaamu yàlla ak liggéey ak dimbale taalibe yi loolu la fi nekke kon daal loolu mooy histoire dëkk bi ci gàttal euh, ñu ngi sant baax waa Sénégo di leen ñaanal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Sénégo TV Sénégo point com euh, comme ni ñu ko waxee woon léegi rek euh, ci njëlbeen mooy ñu ngi fii ci Daaru Marnaan ku xam nag gaarasu Dakar bu njëkk ba ak fii di pencum Daaru Marnaan ci 100 mètres rek lay toll fii nag. dëkk la boo xam ni maam Cerno Birahim moo ko sanc ci njëlbeen ni leen ko waxee ci nëgala Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ci ab leetar boo xam ne mi ngi bàyyeekoo woon ci Cheikh Ahmad Bamba ñëw ci moom maam Cerno Birahim dëkk la boobu boo xam itam Serigne Fallou Mbacke daan fi ñëw ay yoonu yoonu yoon di fi toog euh, lundi mardi mercredi jeudi vendredi euh, wala jeudi kon mu doog a dem fële ci Touba dem julli ji fa bëri na itam ay kilifa yu mag yoo xam ne ci yoon wi daan nañ fi ñëw fii itam am na kilifa yu mag ci yoon yoo xam ni fii la leen maam Cerno Birahim ndaamal daaru dalale ñoom itam jàngale leen fii ba tax maam Thierno Birahim moomu itam am fi këru boppam goo xam ne moom la fi amoon gannaaw bi mu sancalee Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kër gi ñu génne léegi euh, ca doon fi amal waxtaan ak Serigne naa kon mbokk yi rek nin ko xamee euh, Sénégal ak yóbbu màggal incha allah rabi daañu demaat ci yeneen euh, foo xam ni bu nu eggee daana fa am daal ay xar baaxi sëñ bi wala histoire ci sëriñ bi bu ko defee daal leen koy wan yéen ñi nga xam ne yéenay internet yu yi xam naa kon dañuy yem fii rek ba beneen incha bi ngir yéen ñi ak ñun euh, ci ay euh, histoire yoo xam ne ko indi baaxee ko internet yi mbokk yi jëf ci caméra bi Cheikh Bey ci kaddu gi Ahmadou Bamba di leen kon dig dajee ba beneen incha bi ak Senego TV Senego point com wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.